mbokk internet yu Dakar Net ginnaaw bu ñu leen nuyoo dal leen jàmm ci les minutes de l'info ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info ngeen ci ànd ak Ouzin li ci gën a fës mooy euh, Tunkara Ousmane Tunkara yoon daf ko tegal loxo le 15 mars ba le passé yam ak lundi ñu sukkandikoo ci l'observateur ñu baree bari dañoo jàppoon ni dañu ko plainte te plainte ba état bu Sénégal moom moo ko def l'observateur ci seen binn xalima tey ñoom nee nañ nekkul plainte mbir moomu dañu ko euh, signalé ginnaaw bu mu demee di wuti ay kayit ci euh, benn bërëb bu mu doon wutee kayit ñu teg ko loxo foofu la mbir mi doole. jamono ji ñu toll di wax ak yéen mu ngi ci loxo yoon ba léegi bu ñu sukkandikoo ci Karim Xrum Xax mu bu ñu sukkandikoo également si ay jege ñaalayam ñi nga xamante ni ñoom lay ñoo koy jàppal tànk ñi koy jàppal tànk def nañ benn pétition lancé nañ benn pétition pétition bi li ci li ñu ci wund mooy ay signature la yu bare bare ak lettre jëbale ko jëbal ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité euh, américaine yi ñoom dañ leen wax ni leen Ousmane Tounkara du terroriste Ousmane Tounkara deful benn menace de mort jëmale ci kenn nit la sénégalais bu bëgg réew buy jàppale ay réew et ñoom ci seen biir yi wax lettre boobu ñoom nee nañ euh, ki nga xamante ni mooy Ousmane Tounkara jàppale na xale yu baree bare yoo nga xamante ne ñu ngi ci biir Sénégal ñu monter ay entreprise pétition boobu signature bi toll na si junni ak lu teg jamono ji ñuy wax ak yéen Chérif Abdoulaye Mané paa bi ñu koy woowee paa bi génn na àddina démb euh, bu vingt et quinze jotee fële ca Bignona hôpitalu hôpital de la paix bu nekk Ziguinchor pa bi mi ngi toll si 19 ans gu nekk basseen boobu noonu euh, démb bi mu génnee àddina ki nga xamante ni moom mooy tonton di Jali Cissé yéeg na yàbb ci mbir mi mer na ba futtu la ci ñi nga xamante ni ñoo def loolu ndax ab bal perdu la te bal bi bi mu ko doon dal mi ngi ko fekk muy waxtaan ak waa këram waaye nijaay ji nee na mbir mi na ko yoon dox ba ñu xam kan moo rey seen euh, jarbaat boobu Chérif Ibrahima Koli Famara Goudiaby ma Silla ak pa bi mooy ñeenti xale yi nga xamante ni ñoom ñoo génn àdduna ci euh, manifestation yu amoon fële ca euh, Bignona Ousmane Sonko jamono ji ñuy wax ak yéen mi ngi doon euh, wax ak ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy wàllu ñoo lànk bu fa jógee dafay dem ci Mali Gakou waa ñoo lànk la doon waxal waa waa ñoo lànk ba ñu génnee ñoom def nañ seen déclaration li ñu wax mooy président Macky Sall na bàyyi otage politique yi maanaam ay Clédor lii ak ay Assane Diouf ak Guy Marius Sagna ak ñeneen ñi waaye mu mel ne euh, ki nga xamante ni euh, moom mooy euh, le juge des flagrants des flagrants délits moom bàyyi na quinze xale quatorze xale la bàyyi quatorze xale la bàyyi ginnaaw bu ñu leen doon toppee ay ay bokk ci manifestation yi nga xamante ni yoon daf koy tere ak yàq alalu jàmbur Gris Bordeaux ginnaaw bi mu waxee ni moom dafay plainte ki nga xamante ni moom mooy maître Malick Sall mbir ma teg nañ ko ci suuf lu tax ñu teg ko ci suuf ndax euh, ki nga xamante ni mooy ministre de la justice bi moo leen convoqué démb ci bureau am septième étage building administrative euh, bu euh, bu nga xamante ni moom moo nekk ville bi mu leen dalalee daf leen baalu jéggalu ci encore une fois li nga xamante ni moom la waxoon wax bu rëy boobu mu waxoon France 24 waaye Gris Bordeaux la Modou Lo Eumeu Sène Balla ñu bari nag ñu njort naan ndax kilifa gi comp euh, lu leen AstraZeneca ak Sinopharm di ñaari ñàkk yi nga xamante ni euh, mi ngi lëmbee réew mi jamono ji ñu toll nii euh, bu mujj bi ma mujjee wax ki nga xamante ni moom lay Ablaye Diouf xale bi nga xamante ni moom moo doon wax ni waajuram bu góor dafa am ay jafe-jafe ginnaaw bu mu ñàkkoo fële ci hôpital bi yëmbal ñu daal di koy rawale hôpital Fann ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Diouf Sarr yam ci mbir mi waaye fa mu taxawoon la taxaw ndax nee na ñàkk bi duñu ko bàyyi duñu ko bàyyi tey duñu ko bàyyi ëllëg ndax gisul benn nit bu xamante ni ñoom ñooy ceetu ci wàllu ñàkk bi nee na ñu bàyyi ko en plus tamit nee na ñi nga xamante ni ñoom ñooy OMVS organisation mondial de la santé waxaguñu benn yoon ci ñàkk boobu waaye li ci doy waar bu ñu sukkandikoo ci xalaat TV mooy France as es France Allemagne Italie dëkk yu baree bari ci nekk Europe daal di nañ dakkal ñàkk boobu noonu te li nga xamante ne moom mooy Sinopharm bi autorité yi boobu lañ doon ñàkk ndax mooy Sinopharm bi nga xamante ni mi ngi jóge ci réewu Chine ginnaaw bi euh, ñu waxee ni Chine daf leen ko may ba ci biir ñu wax ni siin daf leen ko jaay deux milliards. ñàkk boobu noonu la autorité autorité sénégalaise yi doon ñàkkoo te ñàkk boobu si boppam amul benn danger kon dafa mel ne ñi nga xamante ni waa AstraZeneca ñàkk boobu noonu la baadoolo yi di ñàkk te effa secondaire yi mi ngi commencé di lëmbe réew mi waaye dinañ ko toog ba xam wànneen euh, fu mu mujjee ak i gëtëm dañu koy daanelee ak euh, Sanyang Sanyang di dëkk boo xamante ni mi ngi nekk fële ca bi Euh, digganteem ak Banjul toll ci quarante kilomètres jëf ju euh, doy waar bi fa amoon euh, barki démb waaye jàmm dellusiwaat la ci dëkk ba ndax ki nga xamante ni mooy Sénégal ba mu duggee ca benn kër boo xamante ni étranger moom moo ko fa nekkoon visel ba di Gambien mu doon jéem a am lu muy jël jàppante am fa bi muy jéem a cambrioler kër ga bi jàppante bare mu daal di koy dabax paaka. daal di génn àddina coow lu bari dëkk ba génn singli sénégalais yi nga xamante ni ñoo fa nekkoon rawatina mool yi ba yàq sax usine chinoise bi nekkoon foofu noonu ba commencé woon di yàq police bi nekk foofu waaye armée ba moo génn ñëw daal di daal di sécuriser dëkk bi ba jamono ji ñuy waxee ni jàmm moom moo fooy dem waaye ki nga xamante ni dañ ko teg loxo mi ngi ci loxo yoon ba léegi loolu lañ leen indiloon ci seen euh, rubrique les minutes de l'info wéy leen di abonné seen site d'information bi di Dakarnet du la rëcc ci réew